gis nañ ne bu dee diwlin bi euh, prix bi wàññeeku na bu dee suukar bi prix bi yokku na loolu yëpp nag directeur du commerce intérieur wane na lu tax te nangul nañ ko ko ndax bu fekkee ne suukar bi dañ koy importer te prix bi dem na ba 700 euros jógee ko ci ay 630 650 kooku foog mu am njeexital ci prix bi nga xam ne moo nekk sur le marché intérieur donc fi mu nekk nii mu jógee ko 575 ni ñu koy homologué def ko 650 bu dee ci diwlin bi nag gis nañ ne marché international parce que moom itam dañ koy jëgaani marché international bi euh, favorable na donc wàññeeku na wàññeeku boobu sax même prix bi nga xam ne moom lañ ko homologué am na ñuy jaay lu yees loolu mais ñu attirer attention détayan yi que comme fa ñuy jëlee prix bi yees na prix bu ñu homologué ñoom itam nañu góor góorgóorlu jaay ñu ko prix bi nga xam ne yees na prix bu ñu ko parce que ku nekk dafa war a mos waaye xamp waratul am loolu daal ñu ngi leen si invité ñoom ne nos camarades Aliou Ba pour que ñu respecte loolu mais à la kuliyal foog ñuy dajee surtout douane bi gën a waxtaan ci li nga xam ne moom lañ ko sas muy comme na mu ko daan defee parce que c'est le lieu de les féliciter depuis que crise bi am lépp loo xam ne ministère du commerce ñaan na ko douane bi def na ko que ñu gën a euh, defaat pour que prix yi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la ñuy euh, jaayee huile bi at ñi ko jaayee suukar bi ñu daal di ko mën a def ku nekk gis ci bopp importateur bi détaillant bi ba ci consommateur final bi. fi mu nekk nii lay jeex na ndax lu jógee ko 575 dem ba 650 fii ci Ndakaaru parce que boo demee ci région yi ñoom itam danañ def seen conseil national la consomation teg ci seen régional yi danañ def seen conseil national régional teg ci seen euh, frais de transport. donc fi mu nekk nii lay jeex na ci détaillant bi nga xam ne daf doon wax ne gisu ci boppam parce que 575 nga dem ci 650 ça veut dire que sa préoccupation boobu nga doon wax ci ay mbuus ay yeneen loolu jël nañ ko en